asalaamaaleykum mm-hmm. maa ngi nuyu sama famille bi yëpp mm-hmm. ci kaw ba si suuf di nuyu sama ñaari doom rahman prince rahim mm-hmm. maa leen di nuyu bu baax a baax di leen defal jàmm di leen souhaiter longue vie avec santé bonheur la paix joie réussite et bon avenir bu leen yàqkat mënal dara ni kat ni lam ni ci kaw kanam si lu baax di nuyu suñu maman bi ajaratu maman Mariama koy ziyaare bu baax a baax di ko ñaanal jàmm bu bari bari bari ñaan yàlla rek yàlla bàyyi ko suñu sëriñ mm-hmm. eh, bu ko yàqkat mun a dara ni cat ni mm-hmm. làmmiñ ci kaw ci kanam si lu baax si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi suñu sëriñ ñaan jàmm bu bari bari bari mm-hmm. di nuyu suñu princesse la reine mu lekk courage si liggéey bi macha allah. Mm-hmm. di la ñaanal bu bëri bëri nga yàgg ci tuwel. Mm-hmm. yàgg jàppale suñu sëriñ. Mm-hmm. yàgg ufal ñu suñuy principe bu baax a baax. am jàmm bu bëri bëri bëri si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si barke suñu sëriñ ngeen am jàmm bu bëri bëri bëri di nuyu tàttu umbi ak njabootam. famille soo yëpp nuyu naa leen siyaare naa leen di leen ñaanal yàlla yàlla bàyyi leen nag suñu xalif ñu yàgg gis lépp fekke lépp jàmm bu bari ak njaboot bi leen wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ndeysaan macha allah bu Adama moo nekk noonu Virginie Traoré ngeen ko moom it boobu ba tey mu ngi fii ndeysaan ñëw ànd ak sëriñ bi ñëw taxawu sëriñ bi ànd ak Moule Moule ak jëwriñ yi vraiment di kontaan bu baax a baax nag ci seen taxawaay ñoom ñëpp vraiment accueillir nañ ma taxawu nañ ma vraiment gàtte nañ ma aussi macha allah di leen ñaanal ñoom ñëpp jàmm ak taw feex vraiment di kontaan bu baax a baax nga ne am na question boo ma bëgg a laajte. waaw ndaxte dama seetlu depuis fan yi yëpp. waaw dama gis ñoo xamante ni amuñu këyit. waaw ñuy wax nii ñoo ngi ñii naan depuis 2017 ñoo ngi fi amuñu këyit. Mhm. ñii naan depuis deux ans amuñu këyit. Mhm. léegi dégg bi ñu dégg sëriñ bi fii ah. tax na nu ñëw di ah. consulter hmm. bëgg mu dimbali leen moo tax ma di la laaj question boobu waaw macha allah jërëjëf euh, soxna Aysatu moo nekk noonu moo tey caméra bi euh, ñoo ngi kontaan bu baax ci sa si sa laaj bi di am kontaan ak mbégte wa suñu ñëw fii ci Europe loolu bokk na li ci li ko waral parce que dégg nga ñu fi ñëw ñu bari sax dañu am problème mu am pro am jafe-jafe te dégg ngeen ma ne leen am na ñu bëri ñu bëgg a jëflante ak man amuñu këy te ñoo ngi fii France déjà bëri na ñi ma jàppale ñu am këyit muy France fii muy Italie muy Allemagne muy États-Unis am na ñu bëri ñu ma dimbali ñi nga xamante ne boobu maa ngi Sénégal waaye nag ñëw bi ma fi ñëw aussi dinaa leen jàppale bu baax a baax parce que yàgg ci réew mi aussi am fi dix ans sept ans am fi euh, quinze ans munoo am këyit loolu dafa metti boo ko defee nga am këyit bi nga xamante ne forot la te baaxul ndax buñ la ci jàppee mun nga ci gën a am ay jafe-jafe te bëri na ñu fi nekk ñi nga xamante ne amuñu këyit bu baax maanaam këyitu fraude la bëri na ñu fi nekk ñi nga xamante ne këyitu fraude la ñu am mm-hmm. te buñ la ci jàppee da ngay am problème loolu loolu bëri na ko fi am mm-hmm. moo tax ñu ñëw fii pour dimbali leen ñu mun a am këyit mun a am séjour mm-hmm. mun a am nationalité loolu mu ñu indi fii ba pare jàppale leen ci seeni soxla parce que am na ñu fi nekk am nañu wërsëg waaye mënuñ jote seen wërsëg am na ñu fi nekk aussi feebar rab yi sonal leen jinne yi gis nga démb am na ñu ñëw hôtel ba problème mu rab sonal leen di leen perturbé loo di leen sonal waaye loolu moo tax ñu ñëw fii ci France loolu moo tax ñu def tournée européen bi bëri na nag ñi nga xamante ne dañuy consulter VIP ñooñu duñ leen filmer macha allah comme Sénégal rek am na ñuy filme am na ñu ñu dul filmer parce que ñenn tamit dañuy làqatu dañuy bëgg a faju dañuy bëgg ñu ñaanal leen waaye dañuy làqatu waaye loolu it amul benn problème l'essentiel li ñuy tax a jóg pour jàppale askan bi jàppale ñi nga xamante ne ñoo ñoo tukki nekk fii ci Europe loolu moo ñu tax a jóg actuellement ñoo ngi wéyal di consulter xam naa ne quelque temps incha allah dinañ delluwaat fële ci Suisse euh, am nañ fa ay rendez-vous aussi euh, su ko defee ñi ku ñu soxla aussi gis naa ne ñoo ngi laaj ci ay numéro téléphone euh, ku ci ku ñu soxla tamit numéro Sénégal WhatsApp bi mun nga ci woote

soo defee indicatif bi incha allah boo ñu woowee appel whatsapp di nga ñu jot waaw incha allah te aussi dinañ fexe suba ñu ut euh, aussi euh, dinañ fi ut piisu France ndax ba demee Suisse tamit nañ fa piis Suisse waaye incha allah temps bi moo tax awma temps boobu ba tey pour ñu dem uti piis parce que maa ngi ci liggéey bi maa ngi ci taalibe yi maa ngi ci recevoir taalibe yi waaye incha allah dinañ ut piisu France aussi soit beneen piis bi tamit ñaama soir ku ko ci woo dina la orienté aussi di am kontaante ak mbégte di ñaanal ñëpp jàmm di wane ne sëriñ bi moo ngi ci jàmm ak salaam maa ngi fii biir France ànd ak taalibe di maa ngi ci jàmm bu baax di nuyu madame Sow laa ren ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm ak taw tawféex di nuyu suma ñaari doom yi prince Rahman prince Rahim di nuyu macha allah yal na yàlla defal leen jàmm ak taw tawféex di nuyu suma goro yi euh, macha allah ummi ummi Diagne ngi koy nuyu soxna ummi. di nuyu aussi alaaji Sofi di nuyu ajaratu Mariama bàyyi bàyyiwuñu kenn kontaan ak mbégte la ñuy doxee biir France ñoo ngi aussi visité di xamaale dëkk bi ñoo ngi ci jàmm ak salaam sëriñ bi moo ngi kontaan bu baax ci taalibe yi yal na yàlla def jàmm kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi yal yàlla barkeel lépp suñu ñëw fii ci Europe ñëw pour jàppale askan bi la suñu ñëw fii ci Europe ñëw pour jàppale jaam ñi la ndax nit ñi dañoo feebar nit ñi dañoo am problème mu rab ñii ñi dañ leen liggéey ñii dañu am problème mu këyit ñii dañu am jafe-jafe ngóora yooyu yëpp indaale nañ bagage yi indaale nañ vite fait yi vite yaa ngi fi volcan yaa ngi fi t-shirt yaa ngi fi euh, photo yaa ngi fi euh, ma porte-clés yaa ngi fi lépp laa indaale baatin bu leer xam-xam bu wóor defe naa ne keroog le 20 janvier wane naa suma bopp génnewuma vite fait génnewuma volcan génnewuma ndox sama xam-xam laa jëflante jinne yi tam tam tam tam tam tam tam tam tamaruusi gis ngeen tam tamaruusi jinne bu soxor la jinne bu am doole la jinne bi nga xamante ne du xool ci suuf ci kaw lay xool maa ko terrassé daan ko macha allah tam tamaruusi maa ko terrassé daan ko gis ngeen jinne bi nga xamante ne bu jigéen bi aussi euh, xaw ma nu mu tuddati sax pasteur la de chef pasteur yi waaw boobu boobu boobu boobu boobu góor la kooku bu góor la jinne tamit seefu pasteur yi góor la gis nga ko coojam la yor yor ay taalibe jinne yor aussi macha allahu nekk tamit franc gis nga maa ko terrassé daan ko wàccee ko jinne boobu tamit am na beneen jinne tamit bi nga ah? tamit mooy jinne bu jigéen bi mhm. euh, gis nga judurum jinne bu jigéen la moo it jinne bu toppoon xale bu góor bi tudd xaadim mhm. aussi maa ko terrassé wàccee ko mhm. kon nag wàccee naa fi ñetti jinne ak benn jinne bi nga xamante ne dafa yor ay taalibe jinneem yor ba ay taalibe dëmm kon defe naa ne gis nañ ko vraiment ci vidéo yi te gis ngeen ndeysaan ki doon filmer sax euh, dafa daan man la première fois mu filmer loolu yëpp pour ñu won leen rek ngeen xam li fi xew pour loolu moo tax ñu filmer portable amul lu ñu moonte amul lu ñu dara ki doon filmer sax xam ngeen ne du professionnel maa ko daan wax taxawel nii defal nii jëlal nii pour mun a partager ak yéen. Mm. pour ngeen mën a xam li xew ci événement bi mm. loolu kese la. Mm. kon nag lu ne fàng kenn du ko jeex defe naa ne France jombi nañu. Europe jombi nañu. li ñu daan gis ci vidéo yi tey indil naa leen ko ñu fekkee ko jaxaraan. kon nag la xalif général des jinne le king of the king le roi médecine traditionnelle du monde. le le roi des jinne kooku defe naa ne suñu ko ko suñu ko ñu ko waxee. lu mën a nekk la dem nañ Kaolack rajaxe Kaolack mhm. dem arène BCEAO ñaari yoon ma toj ko mhm. ndakaaru toj naa ko mhm. toog naa ndakaaru toj yëngal Europe toog naa ndakaaru yëngal Asie toog naa ndakaaru yëngal Amérique retourné nag ñëw biir Europe macha allah jaxase mélangé biir Europe yëngal jinne ak dëmm yi defe naa ne kon nag la xalif général day jinne kon nag noo ñu doon xaar defe naa xaar dinañu Euh, noonu doon yàq der ak di wax defe naa ne macha allah gis nañ taalibe yi nu ñu ma teeroo ni ñu ma teralee nu ñu ma fonkee nu ñu ma yëkkatee ak nuñu ñu ma euh, respecté kon nag lu ne fàng kenn du ko jeex defe naa ne noonu yu bari fu mu nekk ni dañuy seen xol yi dañuy xaar waaw macha allah kon nag ñoo ngi sant bu baax a baax. ñuy xaar pour toujours. pour toujours. pour toujours pour toujours dañuy xaar pour toujours. waaw saa su ne dañuy xaar parce que sëriñ bi da nga koy xaar fii nga séenee ko fee kon nag maa ngi sant bu baax a baax mm-hmm. jërëjëf merci.